asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk yi nii janool ñu ngi fii ci kër Serigne Touba ci daanu Marnaan euh, daje fa daje bu am solo daje bi lépp nag di liggéeyal Serigne Touba. Euh, daayira bi fi teew tey di daayira bu mag bi lëkkale mboolem soudeur métallique yi nekk Touba muy daayira xidmatul xaddim ma feggoog jëwriñ ji Serigne Modou Ndiaye ak porte-parole lu mbooloo mi di Serigne Mame Thierno Dioum. président organisateur bi Serigne Mass Mbaw vice président Serigne Baye Aliou man mi yor kàddu gi di coordonnateur mbooloo mi ñu teewoon fi tey am fi xëy mu am solo mu ñu xëyal Serigne Touba xëy mi nag dara taxu koo jog lu dul daayira bu mag bii ñuy woowee Touba ca kanam ñoo amoon liggéey bu mag bu ni amal at mu jot di ko jàppale Serigne daara yi di leen wutal ay mbaar yu leen mën a aar ci naaj wi ak ak taw bi ngir ñu mën a mottali seen liggéey ci xale yi njàngalem alxuraan mi tey jii nag li ñu a teew mooy daayira dafa ñëw euh, fas yéene jàpp ci liggéey boobu nam cey jàppee mooy indi seen xam-xam indi seen doole indi seen matériel indi seen lépp fa yéene liggéey euh, mbaar yooyu ngir jëmmi Serigne Touba ñu feggoog porte-parole mbooloo mi Serigne Mame Thierno Dioum euh, nu bëggoon koo laaj rek Serigne Mame Thierno bisub tey bii ban taxawaay ngeen ci am ak lan mooy seen yëg-yëg ci liggéey Serigne Touba bi ngeen xëyee tey bismillah barke borom Touba sëñ Fallou ñooy jaar bu baax a baax a baax mm, di santaat Serigne Touba bu baax a baax ci bis bii nga xamante ne yendoon nañ ko mu wér nañu ne yendu giñ fi yendu waxtu yi ñu fi jeexal ak ñaq wi fi tuur lépp jëmmi Serigne Touba moo tax. loolu ak cant la goo xamante ne nii buñ ci bëggoon a indi leeral tey duñu xam nuñ koy waxee waaye nag sant nañ Serigne Touba sant goo xamante ni. yokkul ci ñun lu dul gën a fedd suñu laxasaay gën a yokkaat suñu pasteef ci lii nga xam ne moom lañ dëgmal muy liggéeyal Serigne Touba ndax ni nga ko waxee euh, bis bi euh, bisub Serigne Touba la bisub alxuraan la boo xamante ne ni daaray alxuraan yi ci dëkk ci dëkkub Serigne Touba bii nga xam ne lu ko fi gën a ñor sëriñ Touba bariwut yàlla dogal suñu mbokki taalibe yi nga xamante ne ni muy Touba ca kanam nga xam ne ñun ñëpp ci lañu bokk. Euh, sasoo at mu jot ñu am lu ñu liggéey ni ko sëriñ bi waxee léegi at mi ñu jagleeloon ko ne dañoo fas yéene taxawal juróom benn fukki daara ak nangam yoo xam ne dañu set daara ju nekk la mu yittewoo ñu defal ko ko mu mel ni xayma nañ ci fanweeri daara ak ñett yoo xam ni ay mbaari alxuraan la ñu yittewoo yoo xam ne ni ni nga ko waxee bu taw bi day ñëw wala naaj wi du yàq ca liggéeyub sëriñ jaar yooyee dara suñu borom dogal Euh, bi ñu xoolee xidmatul xadim euh, pas-pasub liggéeyal sëñ Touba rek tax leen a jóg Touba ca kanam pas-pasub liggéeyal sëñ Touba rek rek tax leen a jóg ñu yëkkati woon ay kàddu dox ci ay jéego ba xalaat na comme kat ñaar ñu bokk fu ñuy roote la bokk fu ñuy sotti kon nañ ci waxtaan ak xidmatul xadim biñ ci waxtaanee ak xidmatul xadim it ñu waxtaan ci ñoom ak ñi ñu ci war a waxtaanal ñoom ñu faggu mbooleem li nga xam ne matériel la bu jëm ci liggéey boobu Euh, joxe ko ñu nit ñu ñëw jaayanteeg sëñ Touba yëkkat suñu ñaq ak suñu xam-xam boole ko ànd liggéeyal ko sëñ Touba loolu moom wax dëgg yàlla mënuñoo am lu ko féete kaw ci ak cant. sëñ Fallou xam naa daal yëg-yëg bi yëpp neexul ñu résumé ko waaye yëg-yëg bépp daal mooy yëg nañ ne ñoo am lu weesu euh, sant sëriñ Touba ci lim ñu defal tey. jërëjëf jërëjëf euh, jëwrin Maam no ñu feggoo ba tey ak sëriñ moodu Mamoun Guèye moom mi secrétaire sénéralu u mbooloo mi waaye Serigne maas Mbow mi nga xam ne ni mooy président organisateur bi moom lañ bëggoon jox ay kàddu mu leeral ñu euh, mbooloo mu toll ni ku leen dajale ci benn barab euh, ñëpp di boroomi xam-xam nga leen ci benn barab ak limu mbaar yu toll nii yi ñu xëyee tey jii nii ñu fas yéene koo liggéey ci benn fan euh, ban programme la la la tëral ba liggéey boobu mën a am. auzu billahi mina seytaani rajim Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Fallou ñu ngi lay ziare bu baax a baax euh, di rafetlu bu baax sa laaj boobu noonu euh, sëñ Fallou mbooloo mu mel ni ku ne xam na ni mënoo leen a dajale ci lu dul lu dul organisation rawatina liggéey bu mel ni muy liggéeyu mbaar lu toll ci 33 mbaar nga bëgg xëy liggéey ko ci benn bis il faut nga teg ko ci organisation boo xam ni. bu tege ci yoon lay doon parce que loolu mooy mën a tax nga mën a gañ a temps bi mën a defar fanweeri mbaar ci benn bis. Euh, loolu nag sëñ Fallou bi nga xamee ni euh, yàlla dafa dogal euh, ñu si ci war a programme nan la ñuy liggéeyee liggéey boobu noonu ci lañ organiser nag ay ay ay ateliers yoo xam ni onze groupe la yoo xam ne groupe bu ci ne ab atelier la groupe ne war a defar ñetti mbaar ci journée bi. sëriñ maam Thierno Dioum wala sëriñ. Modou Mamoun Gueye mi xam ne ni mooy secrétaire mbooloo mi di jàmbaar loolu ci liggéey bi moom it sëñ Modou Mamoun euh, ñuy laaj la rek euh, euh, daayira bii di xidmatul xaddim képp ku ci bëgg a dugg ndax am na ay mbokki soudeur métallique yoo xam ne nii ñu ngi ci dëkk bi te xañ na jotaguñoo bokk ci liggéey bi ku ci bëgg bokk naka ngay def ak lan lan lan ngay sartante ak mbooloo mi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax te di jaajëfal. di siyaare bu baax sëñ fàllu Mbow mi nga xamante nii mooy partagé kàddu gi mu mel ni ki nag daayira Xidmatu Xaadim moom ni nga ko wax noonu rek kuréel la goo xamante ni moo lëkkale mbooleem mitaali gi Touba yëpp mel ni ki nag liggéey bu am solo bi nga xamante ni mooy bi jëm ci Touba mu doon kuréel goo xam ne seen jubluwaay rek mooy saytu liggéeyu sëriñ bi ci biir dëkk bi mu doon mbooloo moo xam nii ñu ngi ko taxawal ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha jubluwaayam nu mooy uh, ànd lëkkale mboole mitaali gi nekk ci Touba yi jubluwaay nag mooy lépp loo xam ne lu jëm ci liggéey sëriñ bi la muy entretien jumaa ji ak lu mel ni kër sëriñ Touba ak lu ci liggéey bi nga xam moo jëm ci kër sëriñ yi muy kër sëriñ moo gën a nekk seen uh, programme. waaye ci biir loolu nag am na leneen liggéey liggéey yoo xam ne nii mi ngi seen kanam. muy lu jëm ci dëkk bi suñ ne dëkk bi nag yi nga xamante ni mooy kuréel yi fi nekk te yàlla dogal li ñuy liggéey mu jëm ci sëriñ bi mu doon loo xam ne nii gis nañ li kat ndigale bu jóge ci Cheikh Mamadou Mountakha jëm si ci kuréel googe su boobaa nag ñoom seeni warteef mooy ñun li nga xamante ni mooy suñu cër ci loolu mooy diggante weñ bi ak aluminium ak métallique bi mooy li nga xam mooy ci ci xidmatu xadim loolu nag euh, moo waral mbooloo mi mbooloo mi nag am na aw doxin doxin yi mooy lan képp koo xam ne yaa ngi fas yéenee dugg ci mbooloo mi la ci boole mooy carte membre. carte membre li ñu ci jublu mooy képp ku dugg ko ne mooy dangay ngay adhéré wu 1000 francs sas wi nga xam mooy sasu màggal gi mooy mille bi loolu li ci jublu mooy moom la ñuy dajale suñ demee ba nga xam ne dugg nañ weeru màggal gi ñu xool li nga xamante ni mooy kër Serigne ak jumaa ji xool li nga xam ne bis bi ko war entretien nu mu toll ñu financé ko ci ah, euh, am na it lu mel ni ki social. moom it dangeen ko ci laaj te ñaare bu fekkee dem nañ ba yenn liggéey yi ñu xool ne liggéey bi kat xam na ne cotisation yi bari na mu murid yi ñoo baaxoo lu ñu joxe ah, bëggaat caa dolli muy lu mel ne jaayante wala ñaraas yooyu bokk na ci li nga xam ne euh, yëngu daayira bi la. ah beneen benn mooy li nga xam ne ci li mooy doxin wi par ajjuma la ñuy def réunion yi fan la ñuy defee réunion yi mooy kër Serigne Touba gi ci garage Dakar bi mooy CES bi par 15 jours lañ fi daje. am na groupe whatsapp yi nga xamante ne nag moo lëkkale mboolem mitaalik yi foofu it comme ni nga ko waxee lépp information boo xam nii waxtaane nañ ko wala ñu war koo waxtaanee fa lañ koy jàllale su boobaa nag ñu mën koo yaatal kenn ku nekk mën ci jot daayira boo xam ne nii nag ni mboolem daayira yi Touba yi doxee noonu lay doxee dañ ko tënk ci programme la daayira war a nosoo muy lépp loo xam ne nii aajo na ci bureau daayira rek yàlla dogal na am na ci biir bépp bànqaas boo xam nii daayira soxla na ko rek daayira bi am na ko kon nag kuréel la goo xamante ni daal euh, yéeneem ak liggéeyam mooy fexe ba li bëgg ak sëriñ bi ci dëkk bi muy lu jëm ci wàllu weñ ak ak ak aluminium ak inox bi mu doon seen cër daal boo xam dañ koy cëroo àdduna sépp xam ko loolu nag mooy li nga xamante ni mooy ah, taxawaayu xidmatul xadim kon daal képp ku ci bëgg a bokk ah mën nga woote ci 77 316 95 95 su boobaa li nga jokkoo ak Modou Mamour Gueye secrétaire général dana la bind dana la leeral li nga xam ne mooy doxalinu daayira bi wala képp koo xam ne yaa ngi ci Touba gi te am yéene bokk ci ajjuma ji la ñuy daje kër Serigne Touba gi ci gare Dakar bi su yàlla dogalee nga am temps mën fi ñëw danga ñu fi fekk bu fekkee ñëw nga ci ajjuma bu fekkoo ñu fi benn ajjuma bi ñëwaat danga ñu fi fekk waaye nag képp ku woote ci numéro ba loo bëgg ci information daayira Xidmatul Xadim incha allah dinañ la ko jàllale kon nag ñu ngi sant mbooloo mépp rek di santaat bu baax a baax. macha allah jërëjëf sëñ Modou Mamoun euh, loolu leer na kàddu am na solo waaye nag ñu fekkoog nag euh, jëwriñu liggéey bi sëriñ Modou Ndiaye euh, mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi sëriñ Modou euh, ñu la doon laaj tey jii ban yëg-yëg nga ci bi nga wootee euh, mboolem mbokki taalibe nga xam ne ay soudeur métal lañ ci dëkk bi ñëpp wuy si la suñuy bàyyi ñu wuy suñu suñuy ndiyaay ñu wuy suñu suñuy mag ñu wuy suñu suñuy morom ñu wuy suñu te nga woote te jiite mbooloo mi ban yëg-yëg nga am tey jii nii ci liggéey bi ngeen sumb tey asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu sëñ Fallou Ba ñoo ngi lay ziaraat bu baax de la jox sa wàccuwaay di jiital di ziar bi sëñ Muntaxa Mbakke di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko ba lim naan lépp liggéey ko sëriñ Tuubaa suñu borom mee ko kàttan mu ko fekkee te ñaan moom sëñ Fallou am nga laaj bu am solo boo laaj mooy li nga xam ne ban yëg-yëg laa am ci liggéey bi nga xam ne tey moom lañ taxawee mooy lu jëm ci Xidmatul Xaadim bi nga xam ne ñu ngi koy taxawal ci Tuubaa ci kanam ci kër sëriñ Tuubaa gi mm-hmm. ah yëg-yëg bi nga xam ne am nañ ko ci mooy santaat sëriñ Tuubaa rek te xam ne lii nga xam ne yëg nañ ko tey ak euh, yëg-yëg bi nga xam ne am naa ko ci mm-hmm. lépp sëriñ bi duñ ci dara mm-hmm. ndax it euh, woowuñu leen ci suñu bopp mm-hmm. ci sëñ Tuubaa la leen woo ñu wuy suñu ci sëñ Tuubaa kon lañuy ñuy jëlaat lépp delloo ko sëriñ Tuubaa euh, yëg-yëg boobu laa am tey ndax it mbir la moo xam ne ni biñ ko taxawalee mooy delloo sëriñ bi njukkal ci dëkk bi moo tax ñu taxawaloon daare bii sëriñ bi nag jàpp naa nit kenn kenn koo gis ni muy muy jëfal ba delloo njukkal mm-hmm. la nga delloo njukkal ah, da ngaa gis loo xam ne lu la naw la ba da ngaa gis lu la jaaxal ci moom mm-hmm. ba tax nga am ci ak mbégte ba tax nga di ko delloo njukkal mm-hmm. te ñoo xam ne ay ndaw lañ dëkk Touba ah, nekk doomi dëkk bi nekk taalibe sëriñ bi defal ñu tawfeex ba dëkk bi lépp li fi war ci ci lu metti sëñ bi moo ko jël ñun Noflaay bi rek lañ leen jël nga xam ne moo ci gën a neex jot na ah, bu dara jub seetee ak lépp loo xam ne bëgg-bëggu sëriñ bi la ñu wër ci suñu ñaq ak suñu doole ñoo def ko ngir Sëñ Tuubaa te mënuñu koo fay ndax la gënoon a lépp moo ko jël kon ñun amuñu lenn lu may santaa Sëriñ Tuubaa mbooloo mi nag eh, ñaan yàlla li nga xam ne moom lañ leen wooy woon di ñaanal Sëñ Tuubaa yàlla buñ ci gis suñu bopp te xam ne lépp Sëriñ Tuubaa la woowuñu leen suñu bopp woowuñu leen ci leneen loo xam ne nii beneen domaine la dañoo gis aw yiw yéene leen ko ñun ñëpp niñ ko amee yiw yéene ko suñu bopp noonu lañ ko yéenee mbooleem kuy tee pees baa ngay téye martoog beneen di ko dóor te di ëpp dëkk bi mm. yi wow lañ la boole ba mm. ëllëg sag bu ñu yàlla may ak wërsëg bu ñu ak ak ak bu ñu yàlla may ci métier mi ñu man ko bokk ak mbooleem ouvrier ci dëkk bi yëpp mm, kon ñu xam ne liñ ci lancé waat rek mooy di soññaat mbooleem koo xam ne yaa ngi ne Touba di liggéey ci wàllu aluminium métallique fer ñoo ngi lay tàllal loxo nga ñëw bokk ci liggéey Sëñ Touba bi ndax mooy suñu sac buñ ko defee suñu cër la buñ ko defee suñu cër la ndax Sëñ Touba lii ñu koy liggéey lépp nekkoon na lum ci loo xam ne yàlla yàlla may na ko mhm. kon nag buñ demaatee ba ñun ñu nekk doomi dëkk bi mhm. nekkaat ay taalibi sëñ Tuubaa mhm. albutikuwaat di taxawaat di taxawaat liggéey sëñ Tuubaa yi kon mel na ne li ñu war a wax mooy alhamdulilah rabbil alamin ba tax na laa xam ne maa ngi ko ci dolliwaat ndax li fi war a jaar lépp mbokk taalibe yi ku mel ne sëñ maam Thierno sëñ Modou Mamoul leeral na bi ak ni muy doxee waaye daal daayira bi moom euh, ci sëriñ bi lay tàmbale ci sëriñ bi lay yem nekkul daayira boo xam ne day politique nekkul daayira boo xam ne day campagne yooyu moom daal li nga xam ne mooy objectif am bu jugee ba xool ne am na loo xam ne nii moo ko jug ngir bëgg koo liggéey Serigne Touba. moom dana def kéemtalaay kàttanam. xool la koy liggéey waxtaane ko mbooloo mi buñ ci déggoo ci terrain bi laaj ko liggéey ko. loo xam ne nag dañ koo seq ak ay mbokk taal ci dëkk bi lu mel ne yeneen daara yoo xam ne dañoo nekk ci jubluwaay Serigne bi. lépp loo xam ne nii am nañ koy ne liggéey ko Serigne Touba. tamit suñu cër su boobaa dina ko waxtaane ak mbooloo mi ba déggoo ci. buñ ci am ak déggoo daañu leen ko liggéeyal ci anam ya gën a mucc ayib. lu mel ne Touba ca kanam gi loolu moo ñu lëkkale ñoom ñu gis seen doxin ci dëkk bi xam ne kat Sëriñ Tuubaa tax nañ la mu lay liggéeyal ñu nit ñu jóg ngir bëgg a liggéey Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi moo tax suñu borom boole luñ ci ñaari doxin yooyu kon ba tax na ànd bi ñu ànd ñi ngi ñaan yàlla na yàlla na ci yàlla euh, def ndox mu sedd guy yàlla barkeel ko ba fépp fu ñuy dégg daaree ci àdduna suñu borom suñu daayira bi suñu borom may fa kattan ba wépp wërsëg boo xam ne nii ab daayira nga koy financé ci dit suñu daayira bi mën koy financé mbaa yi ñuy def tey jii mën naa Touba ca kanam ñoo ko financé waaye bu ñu amoon la ñu gënal yàlla mu ñu wërsëg ñun ñoo koy def ndax te yaaba ñuy sàkku la ndax daara yi ñu koy taxawal suñuy doom ñoo ci nekk ak suñuy rak ak suñuy ba tax na tey yiw woowu tey Touba ca di ko def ñun ñii li lañ bëgg moo ñu ànd kook ñoom ba lépp lu sëñ Touba di fayale ñu mën koo bokk ak ñëpp loolu mooy kaddu yi ngi santaat ñëpp di ñaanal ñëpp jëwri ñi nga xam ne ñoom lañ seqal muy suñuy kilifa ñi nga xam ne ñoom la ñoo ñu jàngal métier ñoo la ñuy jaajëfal bu baax ndax tey lii ñu am tey ñii ba toog di taxawal dara ci seen keppaar lañ ko amee mhm. te ñoom it amuñu seen fay ndax euh, arab day wax naan mën naa la ma xar fan fa huwa mawlaaka mhm. képp ku la jàngal bépp arab sa kilifa la mhm. ba tax na loolu moo tax ñu jël lépp doyloo ñu jiital ñu ci suñ kanam ci seen kanam ñu topp ci topp suñ ginnaaw ñuy liggéey wax dëgg yàlla te fakkas lañu loolu it ñoo leen ciy jaajëfal bu baax te xam ne li ñuy def lépp ñoom rek lañu koy defal ndax tey ji njukkal googu nga xam ne ñu ngi koy delloo Serigne Touba njukkal loolu la ñuy delaat ko delloo suñuy njaatige moo tax bu ñu dañ leen a jox cër boo xam ne ni toog la ñu liggéey leen ndax lii yéen la waroon waaye ñun ñoo leen koy defal ndax li ngeen def ci ñun ñu wan leen li ngeen def ci ñun day lu baax moo tax lu baax la ñu bëgg ko bokk ak yéen ñoo ñu ngi leen ci jaajëf lu baax di ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi ñëpp muy lu jëm ci bureau bi jàppale nañ ma ci jàppale yi am solo yoo xam ne nii liggéey bi mën na ne kenn rek mënu ko waaye nag saa yoo wootee ñu wuy si la te wuy si ngir Sëñ Touba kon Serigne Touba mu ñuy liggéey yàlla nañu Serigne Touba fayal boppam bu baax a baax a baax ba lépp luñ ciy liggéey ak luñ ci mbébét ñaan yàlla ñu bañ cee gis suñu bopp lépp li Serigne bi rek kon sëñ Fallou ñoo ngi lay ziaraat bu baax di ñaanal daayira bi yow it ñu defal ñaan yow it comme président organisateur communication bi mm. yàlla defal tawfeex ak sëñ Baye Aliou Seye mi ba lépp loo xam ne nii suñu borom may nañu yàlla wërsëgu yaatu bu ñu soxla ci daayira bi mm. kenn rek mën ko financé waaw loolu daal ñoo ngi koy ziare ñëpp di ñaanal ñëpp waaw suñu Aliou Seye waaw xanaa kàddu yoo ci dolli rek eh, segam yàlla suñu borom toftal ci jëwriñ mi suñu Modou Ndiaye bu fi nekkul yaa fi nekk yan kàddu yi soññee ngay soññee membre rek ñu gën a takkoot gën a laxasooyoo gën a fonkaat liggéey bi waaw wa rahmatullah ñoo ngi ziyaare mbokk taalibe yëpp di wax na ñun suñu xol dafa sedd ndax daanaka mën naa ne yéen ñi fi wax boloon xase wax rek daanaka wax ji day mate di ñaanal suñ Muntaxa mu yàgg fi loolu tawér di ñaanal wax daari Xidmatul Xadim di leen wax na taxawaay bi am na solo lool xool yi sedd na kon la ñuy ñaan ci kàttanu yàlla suñu borom yàlla ñu defal tawféex defal ñu wér ba lépp loo xam si am nañ ko yéene liggéey sëñ Tuubaa ñu mën koo liggéey kon ñoo ngi sant bu baax baax ndax wax ji daanaka mën na kon daanaka jërut lu ñu ciy tegaat dara ñoo ngi leen di ziar bu baax daal di ji ziar waa daal xidmatul xidma bàyyiwuñu kenn jërëjëf salaamaaleykum ñoo ngi waat siyaarewaat jëwriñ bu baax a baax euh, di amaat luñ tëboon rek tey di ko jéggu lu baax mooy li nga xam ne euh, ak cant gu ñuy beral mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo ñëw tey jii ci ko Sëñ Tuubaa gi diirub ñetti fan ñu bàyyi sinub liggéey ngir taxaw liggéey Sëñ Tuubaa bi ngir bañ mu sooxee ñooñu it ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax te xam ne képp ku liggéey Sëñ Tuubaa moom jarul yërëm ndax fay ga cay fayee mooy tax mm-hmm. ba tax na liggéey Sëñ Tuubaa bi nga xam ne bàyyi nañ seen i place bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ngir jaay ko ngir ñëw ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ñoo ngi leen ciy jaajëfal bu baax ci tuuru waa Xidmatul Xadim gépp te it xam ne euh, woowuñu leen ci dara lu may liggéey sëñ Touba kon it liggéey boobu ñu leen woo it ñi ngi ñaan ci sëñ Touba ñaan ci barkeem yàlla nañ daje tawféex ji ba képp ku fi jógee rek am ak yokku ilaa yu mi diin lépp lu taxoon tey nga jaay bàyyi sa place ñoo si liggéey sëñ Touba bi ñoo ngi koy ñaan ci barkeem sëñ Touba ku fi delluwaat sa place yàlla nga fekkaat lu gën a kawe li nga bàyyi fii yàlla ubbi sa wërsëg may la santé yi yaatu ba xam ne nii bu sëriñ bi soxlaa yow rek nga mën koo def loolu lañ noonu nañ ko jàllale di leen euh, beral ak cant gu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf waaw ah, ñu ngi sant bu baax di sant it euh, bu baax sëriñ Basiru Sylla mi nga xam ne nii moo ñëwoon fii jël si jël si kàddu yi di di ko sant ci liggéeyam bu rafet bi muy def di ko jaarale ci site bi ñuy wax waar wi TV muy site boo xam ne nii àdduna bépp dañ koy seetaan te dara taxu ko jóg dul euh, yaatal Euh, taxawaayu mbokki taalibe yi ak yaatal liggéeyub sëriñ bi ak di joxe information yoo xam ne ni yëpp lay tegu ci aw dëgg leer nañ euh, ñu ngi koy sant bu baax te di ko jaajëfal di ñaan euh, sitam bi yàlla na yokk jëm ca kaw kanam barka Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullah